jëriñu tey nag ku ñu gis fii ñu nekk xam ne ñu ngi si daralu mbuur te buñ nee daral gis li fi nekk xam ne li ko waral mooy tabaski bii ñu nekk ñu ñëw nag fekk fi suñu mag suñu xarit ñu koy wax Mara Mara nuyu nañ la. ñoo ngi leen di fay bu baax. yéen si jàmm bu baax. ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. naka julli bi yéen koy waajal. waaw ñu ngi ci kawam di góorgóorlu rek. ah yàlla baax na naka xar yi fii mbaa mu ngi jar wala nu mu demee noon waaw xar yi moom instant bi moom dafa taxaw moom. parce que euh, semaine ba la ñu jàll gars yi doon nañ ñëw doon jënd ndànk-ndànk mais semaine bii nii moom xam naa ni dafa taxaw souvent tamit seeraay bi moo moo moo tax gars yi fi mu ne nii kenn ñemewut a jënd. waaw waral seeraay boobu nag yéen ak fi jamono toll nii ngeen di seeral xar waa xam nga comme fi jamono bi toll nii comme ni nga ko waxee rek. xar yi instant bii nii ñun dañ koy jënd ji maanaam dañuy jóge fii dem ba Bambey wala ñu jóge fii dem ba Mbafay xam nga dem ci marché luuma yi di jënd te bu ñu demee tamit mënuñu faa jënd xar moo xamante ne bii da nga koy jëndee cent mille ñëw jaayewaat ko cent mille loolu moom moo tax tey gars yi bu ñëwee dinañ xool xar mi dinañ ko bëgg loolu dinañ waxaale te donte xar mi dinañ la si tegal dix mille francs sax su boobaa di nga ko mën a jaay mais instant bi nii gars yi dañuy ñëw xool waxaale dem xool waxaale dem. loolu moom dëgg la sax ndax ko jaayaatee ndax kuy jaay ku nekk bëgg nga si bénéfice waaye nag ngeen defee ne yéen it euh, comme niñ koy waxee rek chaque année ñu ne xar yi day ñëw day ñëw xanaa kon xar yooyu war a ñëw ñëwul wala yéen bu ñëwee doonul pour yéen lay ñëwul yéen jaaykat yi. waaw ñu ngi am yaakaar ni xar dina ñëw mais pour mu gën a leer ci état bi lay dépendre état bi rek moo mën a wax ak xamal nit ñi carrément ne leen xar yi ñu ngi bërëb sàngam ñu ngi ñëw wala ñu won leen ay loo xamante ne bii lu leer si seen bët lay doon mais comme ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si dara bi di liggéey di dem marché di utiwaat bu buñ demee lañ fay fekk du dal suñu xel ndax dañ fay fekk xar yoo xamante ni bi du bari ba pare day cher mais bu noonu dañoo dem marché fekk fa xar yu bari ba pare yomb nga xam ni xam nga kii jaay moom jaay la bëgg ki jënd pour jaayaat jaay rek la bëgg mais su fekkente ni bi dafa dem jënd lu cher su du mën a jaayee loo xamante ni day perte te ku ne xam na ni ku jënd xar yeew ko di nga ko jox mu lekk di ko jox mu naan donte dinañ la si tegal dara sax su boobaa di nga ko mën a jaay waaw mais jamono ji moom ñu ngi am yaqin ni xar dina am moom waaw ñu ngi koy yaakaar moom. xar dina am dina yomb wala xar dina am te du yomb. mun na am yomb mun na am bañ a yomb. ah lu tax nag bañ a yomb yow it nag ak fi jamono toll nii feebar bi ñu foogoon sax ren xar si la war a gën a yomb nag comme daaw sax. waa xam nga bu fekkente ne bi xont bi saako ripaas jarga ñu ngi koy jaayee dix mille franc saako kooraay ñu ngi koy jaayee douze mille franc saako ngooñ mu ngi cinq mille quatre mille huit cent nga jënd sa lu tolloog cinq cent xar teg chaque jour di nga dépassé cinquante mille franc. ndax chaque jour lu mu bon bon bon di nga jënd cinq saaku ripaas cinq saaku saaku bu ne dix xam nga loolu day metti xam nga loolu mënta ànd ak xar mu yomb waaw su fekkente ne bii nag ñoom xont bi wàññiloon nañ ñu ko bu baax ah, su boobaa même boo jëndee xar lu mu bon bon su fi defee ay deux jours trois jours di nga ko mën a jaay ci prix bu normal waaw. loolu dégg nañ ko mais yéen comme léegi kon li ñuy wax naan xarit dina ñëw dina ñëw bu ñëwee dina yomb kon yéen xar yi ñëw ak ñàkk a ñëw yëpp moo yem si yéen comme bu ñëwee tamit prix yu cher lañ leen koy jaay te ni ma déggee ngeen wax ni même bu doonu si xar yi sax xont bi dafa metti te tamit boo si bi nga naree génnee li nga xontee xar mi yëpp ak li nga jëndee xar mi pour am bénéfice loolu moom day metti moom si jëndkat yi moom. moo tax loolu day metti trop parce que bu fekkente ne bii danga dem marché nga jënd xar mi nga jëndee ko cent dix mille nga ñëw waa ju dugg ci place bi rek cent dix mille lay def ci xar mi. donte tegaloon na la sax benn dix mille cent vingt su boobaa da nga koy mën a jaay mu am dara waaye soo kiiwee cent dix mille cent dix mille lay fay ngeen waxaale mu taxaw fa mu taxaw rek dem waaye kuy jaay nag amoo dara ci li nga xamante ne bi moom nga jëndee su boobaa doo mën a jaay ndaxte am na am na xar yu fi wàcc sax mais dañuy dem pour xool pour jënd ci xar yooyu mën a ñëw amaat ci dara waaye suñu demee man xar yi ma yor nii ci place bi moo gën a yomb xar yi ñoom yi ñu indi. mais xar yi fi nekk nii yëpp par la wala yëpp ñoo waaw amoon na ay race yu fi nekkoon amoon na fi ñaari jeune mâle yu fi nekkoon ak benn géniteur comme bële na le taxaw boobu benn laadum la ak yeneen yi mais ñaari dama koo jaay démb sama benn waay boo xam ne ab éleveur la moom laa koy jaay démb mais si des nii yëpp moom ay tulaabeer lañ ay xaru yar lañ am na si yoo xamante ne bi man maa leen yeewoon sama biir place si biir euh, doon leen xont lu toll ak 6 après bi tabaski bi ñëwee ci laa leen génn ci biti. ak yeneen xar yi xaru yar yee gën a seer de xanaa wala. xaru yar mënta bokk ak xaru coggal ndax xaru coggal pour nga lekk ko da am poobar bu bari <laughs> <laughs> da bu bari pour mën koo lekk mais bu dee xaru yar lépp loo soxla si moom dala koy jox parce que qualité lay doon danga nga yar mu suur dina am gerees dina am ndawal lu nooy waaye bu dee xaru coggal yi xam nga maanaam xar yi bari waay bi muy bari moo tax xont ba day metti lool waaye dañ leen di dundal rek suñ leen di dundal rek maanaam suuraay ba ñu war a suur ak gerees ga war am duñ su boobaa loolooy waral nag maanaam seen yàpp di dëgër wala muy demee noonu. ñoo xam nga ku lay de waaye mooy loolu waa léegi xar yi nii nekk fii nii ñoom tey bi si gën a cher cher xanaa yeggul cinq cent mille de. non non non bi bi si bi si yeggoon foofu moom yàlla dogal na mu dem waa ndax sam ndax waaw sam benn waay laa ko jëndal fi mu ne nii daal bi nga xam ne moo fi gën a cher fi mu ne nii trois cent soixante quinze mil lay jar. te yéen a wàññi seen loxo nag yërëm borom kër yi bëgg nañ xar de. seen prix moo tax amuñu fitu ñëw te njaboot gaa ngi leen di xaar te yéen yërëm rek. yàlla xam na ni man de su ma soñoon man Mara hmm. su ma ñëpp tabaski su ma soñoon ñëpp am xaru tabaski waaye nag képp kuy liggéey gañe ngay bëgg waaw kenn du liggéey pour perte waaw ñiy liggéey ñëpp dañuy bëgg di liggéey ngir gañe waaw ñu ngi ñaan nag yàlla na xar yi bari lool te yomb lool hmm. ñëpp mën a tabaski si jàmm salaam ndax ku ne xam na ni dañoo jógee ci benn euh, tolof tolof boo xamante ni bi Sénégal ñëpp ko yëgandoo wallaahi ñun ñi ñun ñi man mi di wax ak yow nii yàlla xam na ni trois mois yi jàll li ma si daj du ma ko nettali kenn waaw metti na ci man lool sax waa daam lu ma la bëggoon a laaj nag lu ma fi gisul ndax dañ ne boo amul xar mën ngaa am béy mais man fii dama fee gisul béy ay xar kese laa fi gis pour ñi nga xam ne am amuñu njëgu béy eh, njëgu xar bu njegu béy lañ am léegi ñooñu moom kon nu ñuy def waaw jamono ji fii may wax ak yow nii nag béy sax moo gën a seer ah. waaw ndax tey si suba am na ku ma doon jëndal béy mais bi ma duggee ci biir dara bi ci paa yi jaay béy maanaam yiñ woon sax man ñi ma ko koo jëndal waaw ma ko koo jëndal ndax wax dëgg yàlla dafa seer te instant bi bëy yi bariwuñ sax ci daral bi boo duggee ay quelques bëy nga fay fekk ci biir daral bi. man kay gisuma fi sax bëy ay xar laa fi gis moo tax ma lay laaj bu ñu fi ñëwee ba tey. waaw bëy moom mu demee ba seeree noonu kon ñun fu ñu jëm nag fuñ jëm rek laay laaj ren si tabaski bi mbaa borom kër yi kon ñoom dinañ tabaski ñenn ñi. incha allah ñëpp dinañ tabaski ah, ñëpp dinañ tabaski non prix yi moom incha allah dina dina dina wàcc moom prix yi dina wàcc moom ndax ñu ngi ci am yaakaar bu baax ah kon alhamdulilah nañ euh, rek di gëm bu ko defee Mara ñu ngi lay sant di la gërëm di la kontaan nañ si bokk ak yow suñ émission bi di ñàkk jëriñu ñu ñëw fii si suñ daral bi si Mbour fekk la fi ñu ngi lay sant di la gërëm léegi nag yow looy bàyyee clients yi nga xamante ni ñoo war a ñëw pour jënd si xari waaw clients yi li ma leen di bàyyeel mooy ah, nañ xam ne fi mu ne nii ñu toll maanaam mbir mi moo toll foofu ndax ku ne xam na ni ci liñ jóge moo tax ñëpp dañoo ne ci jafejafe waaye lu waay am rek te nga tamu leer la ni soo demee ci marché bi di nga mën a am xar soo ñëwee bul xeeb waaw lu loo loo gis rek tamu leer la ni waa ji wax naa ak yow mu dëgër foofu ba dëgër fa jëndal te xam ni mooy sa muur te xam ne xar yi ñoo toll foofu loolu rek laa leen digal yaa di leen ñaanal nag suñu borom may leen xéwal goo xamante ne gi ñoom ñëpp dinañ ci mën a am xar di ñaanal sama waa ji nga xamante ne bi moom moo ñëw tey fii ci place bi seesi ma ak yow mi mu àndal ak geneen ak gars yi nga xam ne ñoom laa bokk liggéey ñëpp ñoom Seexu ñoom Père Am ñoom ñëpp di leen ñaanal baax baax suñu boroom defal leen xewal ak tawfiix ba nga xamante ne bi tabaski dina mën a jàll si jàmm ak salaam ñëpp am xéwal ñëpp am xaru tabaski incha allah wax ji rafet na bu ko defee ñu baagantewaat rek dem ci yeneen ki fi seen ndax daa mel ni fii moom xar yi bëreegum na ñu dem xool ñeneen ñi rek waxtaan ak ñoom jërëjëf kon ba beneen yoon. jërëjëf bu leen fàtte di abonné si STV ak seen info 8 TV bu leen fàtte di abonné di aimer di partager tamit di commentaire ñu leen di joxaat dig daje rek prochainement di leen waxaat encore une fois bonne de tabaski